mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen sant di leen la eh, ci teewlu bi seen émission dellu si tey nag wax dëgg yàlla eh, yàgg naa def émission bu ma neex mais bii moom dama ci kontaan particulièrement parce que sama waale laa toogal gis ngeen ko eh, ci image yi eh, te tamit c'est une grande dame tey wax dëgg yàlla man ni ma ko découvrir bëgg naa aussi au sortir de cette émission yéen ñëpp nag sénégalais yi ngeen gën ko ràññee mais surtout nag jigéen ñi ngeen gën ko boole ci seen façon ndax daal borom affaire la Euh, kon sunu invité gis ngeen ko euh, mooy euh, l'honorable député Awa Euh, di deuxième questeur à l'Assemblée nationale nekk aussi euh, responsable ci parti bii di Alliance pour la République bu euh, président Macky Sall mais également moom nag bokk na ci kilifa yi nga xam ne wala boog mooy kilifa bi nga xam ne moo ŋànk kon Dalifort gis ngeen lépp ci image yi ñu dem fa kon def ak moom ay ay bés wax dëgg yàlla tournée émission bi kon nag honorable ginnaaw bañ la remercier jaajëfal ci ni ñu accueillir Dalifort d'abord sa base politique ak itamit fii nga xam ne mooy hôtel des députés ñu bàyyi la nga nuyoog Sénégal yi lay seetaan. jërëjëf Aïssatou maa ngi leen di nuyu euh, di am mbégte ci émission bi ngeen ma invité tey. Mm-hmm. Euh, démb ñëw nga Dalifor fekk ma ci sama base. Mm-hmm. ma am mbégte lool. Mm-hmm. ma leen di sant waa Dalifor. ndax tey Awa bu nekkee député. ñoom ñoo ko liggéey. ndax foofu laa commencé sama politique. Euh, di leen remercier ñoom ñëpp duma leen lim muy góor di jigéen kontaan naa seen taxawaay rafet na ci jàppale président Macky Sall donc euh, honorable dañuy door émission bi nee naa euh, yow yaay euh, deuxième kesteur bu assemblée nationale euh, te kon kilifa nga donc ci ci ci ci ci réew mi dama bëgg rek nga wax ñu questeur dëgg-dëgg lan mooy rôle am. Ah, Aïssatou questeur. Mhm. tey dafa am rôle bu am importance bu muy ci assemblée nationale. Mhm. ndax euh, lépp luy jëm ci wàllu koppar questeur moom moo koy gérer. Mhm. ci loolu it dafay nekk sous contrôle du président de l' assemblée nationale. Mhm. Euh, yaakaar naa ne lu am solo la ndax tey budget bi nga xamante ne moom la ñuy voteel ministre yi bala ko voté questeurs yi danañ toog defar budget bi yóbbu ko commission finance su ko defee ñu doog a dem ci plénière yi commission technique yi ak plénière yi. Euh, bu loolu weesoot nag lépp luy dépense balaa balaa balaa ko kenn di def suñu aval daf ciy nekk. Mhm. suñu signataire daf ciy nekk ñu doog ko def. Mhm. kon nag yaakaar naa ne questeur am na importance lool ci assemblée nationale. Mhm. ñu ngi remercier le président Macky Sall. di remercier le président Moustapha Niass ci confiance bu ñu am. ba ñu teg ñu foofu man may may deuxième questeur. Euh, suma frère. daaw da mooy premier questeur. Mhm. kon nag yaakaar naa ne rôle bu am importance la ñuy jouer au niveau de l' assemblée nationale. Mhm. mais honorable euh, pourquoi yow euh, nga nekk kilifa bu ñu toll ah euh, ndaxte questeur dégg naa ñu bëri ñu ni yéen ay milliardaire u assemblée nationale ndax yéen a yor koppar yi pourquoi yow daaw la dem si média yi ci yu mel ne yu mel nii ba Sénégal yi gën la ràññee wala yow bokkatu moo la gënoon neex. si que xam nga euh, média lu am importance la. Mm-hmm. parce que ñu bëri dañ naan yéen jigéenu APR yi kenn gisul leen kenn xam mooy xàmmewu leen. Mm-hmm. waaye dafa fekk ne ñun bi ñuy jot ci réew mi. Mm-hmm. yàlla dafa def ñu jox ñu ay poste de responsabilité. te réew mi bi ñu ciy jotit dafa nekkoon ci ay jafe-jafe. looloo tax mën nañ ne depuis at dañoo loolu woon di liggéey ndax confiance bi président am teg ko ci suñu loxo. war nañ ko prouver. ci loolu nag ñu nekkoon ci dossier yeeg. nekk ci bagage rek. moo tax boobu ba léegi ñu réer ci presse bi. Eh, eh. waaye nag euh, fas yéene nañu toog xamante nit ñi jàkkaarloog euh, askan wi. Mm-hmm. di mën di toog nag di wax ci suñu président lu bari. Mm-hmm. ndax euh, du question nu ñu bañ a mën a wax du ñu tontu parce que yàlla cëralewuñu ñuy tontu. Mm-hmm. te Macky Sall raflewul ay jigéen ñi nga xam ne war nañu mën a taxaw di ko waxal ci ay programme am. ndax tey dañ koo fal. ñi ko fal tey. mën nañ ni jigéen ñi dañ cee jouer rôle bu am importance. Mm-hmm. tey politique bi ci euh, ci Sénégal gi ñu toll. Mm-hmm. jigéen parti bu mu nekk rek nañ am yaakaar ne dina falu. Mm-hmm. kon nag tey bu yàlla defee Macky Sall am ay jigéen ñu xamante ne dañoo xarañ am ay poste de responsabilité. ndax bari na ci ñun ñoo xamante ne tey. ci politique suñuy commune ñoo ko géral suñu bopp kon nag yaakaar naa ne de suñu ginnaaw ci loolu it ci politique bi nga xam ne président Macky mi ngi koy def ñu di ko ci gunge avant mu nekk au pouvoir dem ak moom fu bëri xam yéene bi nga xam ne moom la am ci askan bi xam li mu daj avant muy accéder au pouvoir suñu ànd moom nekk au pouvoir it suñu warugar ak suñu waree mooy toog di ko défendre ndax ñun dañu am confiance ci moom ñun en tant que responsable waaye nag 65 pour cent de la population dañu am confiance ci président Macky te nag euh, liñ naan euh, noppi baaxul parce que noppi euh, soo dul wax dinañ la tuumal loo xam ne amaan amaana sax defoo ko mm-hmm. looloo tax nag tey bi nga bi nga ma invité ma ne woon dinaa ñëw jàkkaarloog yow. Mhm. jàkkaarloog askan bi. Mhm. pour ñu gën a am confiance ci Macky. Mhm. ndax xam nga ki nga xamante ne amul ñàkk na moyen bu mu am pour détruire le parti le pouvoir ci la nekk. kon nag yaakaar naa ne tey bu wax jotee rek ñun ñoo war a wax. ndax ñun ñoo fi fekk Sénégal bu metti li may wax Sénégal gi ñu fi fekk tey buñ taxawoon màggat bu feebar karaw bopp ba ci wewu tànk amul fu baax kon nag yaakaar naa suñu amee président bu taxaw. pour redresser le Sénégal ndax ci la toll. muy gis ay actes yu muy posé muy ay actes positifs. kon nag ñun dinañ war a taxaw wax ak peuple bi confiance bi ñu amoon ci mars 2012 confiance boobu mu bañ a randu te xam ne président Macky Sénégal rek moo ko ñor dara ñoru ko dul Sénégal. te am nañ yaakaar que ne moom dana taxaw ci problème askan bi te taxaw na ci. ndax ñu ngi koy suivre de près. kon nag yaakaar naa ne tey ah damay wax sama moroomu jigéen ñi. ndax ñun président amuñu lu dul moom tey lu ñu am lu nekk moom moo tax ñu am ko. Mhm. dañuy taxaw pour mën a defendre programme am tasaare li muy liggéey ñu xam kan mooy président Macky Sall. d'accord léegi kon tey daal euh, fas nga yéen a àdduna nga jaarale ko ci face to face. on a compris léegi euh, honorable kon dañuy gën a xuus si émission bi ñu ñëw nag ci question d'actualité euh, su ma nee question d'actualité jamono ji am na benn polémique boo xam ne doo dëgg yàlla Sénégal yi rafetlu ñu ko mooy dañoo xëy suba rek te ki nga xam ne moo joxe xibaar boobu mooy ki nga xam ne mooy Doudou Wade ah, nekkoon député nekk nag tamit ci parti démocratique sénégalais mooy yéen fu réew mu toll lekk ñu naanuñu courant bi kuy kuy dégg nga euh, ak coono gi Sénégal la nekkee te président Macky Sall jaay ñu yoonu yokkute ndekete yéen en douce yéen député yi chaque fin du mois euh, euh, bu weesoo kenn ku ne si yéen seen millions yeeg seen ñaari millions seen ñetti millions yi ngeen di jot ñu leen dolli beneen mbakkus boo xam ne enveloppe ci yu baax lañ ko dugal muy 150 000 francs loolu Sénégal yi rafetlu ñu ko te bëgg naa nga wax ma dëgg-dëgg yokk boobu naka la demee. waaw Aïssatou dëkk bi fu mu toll nii. Mm-hmm. yaakaar naa ñu nekkuñu ci yoonu yokk ay salaire mm-hmm. ndax bala ma egg si salaire yooyu nga yu ñu yaakaar ne dañ ko yokk mhm. te président Macky dafa def loo am importance xam nga directeur yi tey lu ñu doon fayeeku mhm. plafonné na ko mhm. xam nga salaire u 14 amoon na ci gouvernement Ablaye Wade déggatu leen ko ci gouvernement Macky Sall te yaakaar naa ne loolu ñoom siiwaluñ ko de 14 millions yooyu ñu wàccee def ko ba ay 5 millions uniquement pour xool priorité bi jàpp ne sénégalais yi am na yeneen yitte yu yu nu am lu dul jël ay 14 millions ak i 15 di ko fay ay directeur loolu président Macky dindi na ko te yaakaar naa ne moom du Doudou Wade toogul ci plateau di ko wax. salaire u député nag yokkuñu ko. 150 mille yi nag. 150 mille yi indemnité de logement la. xam nga hôtel des députés ñaar la woon. benn bi temps yi Sénégal méttee xale yi jóg bëgg ko fi ki fi nekkoon ñu jëlee ko fi cele la ñu mer ba dem lakk hôtel yi. bi ñu lakkee hôtel bi mu des benn hôtel mu am 30 chambres man nii tey man maa gérer hôtel yooyu 30 chambres buñ ko amee sur 150 députés. comme am na benn gab boo xamante ne amuñu fu ñu dëkk te ay Aïssatou député dafa nekk koo xam ne ku am importance la ku am valeur la mhm. parce que député moo fi toogal askan bi mhm. loolu dama bëgg ñu xam ko mhm. te problème yi ci dëkk bi yépp député yi moo ñoo mën a nekk interlocuteur entre le peuple et l'exécutif kon nag député yaakaar naa rôle bu am importance mu ngi koy jouer ba nga xamante ne coono askan bi problème yi nga xam ne askan bi nga koy dund ñu dañ yow ci misaal. député bu dëkk ba Salémata nga bëgg nag chaque jour muy ñëw dakaar amu fi mbokk mënul jël hôtel ndax xam nga ne ñun suñu salaire yi du salaire boo xamante ne mën nañ cee def suñuy besoin ah 1 million 500 nga bu bu ndawee ba ndaw ak ay 2 millions sa sa genre yi bakk yooyu ay 2 millions 2 millions 500 ak yooyu dama dégg. xam nga euh, euh, euh, bala ma ñëw ci loolu. Mm. salaire yi. du salaire parce que salaire ñu ngi sant yàlla un million trois cent mille loolu salaire la mhm. ñu ngi ci sant yàlla mhm. waaye nag député dafa nekk dafa am dafa nekk poste boo xam ne poste de responsabilité la mhm. poste politique la tey député yi ci boppam damaa xam ne balaa la kenn seen salaire jeex na ndax base bi mi ngi leen di xaar ku am ordonnance député bi ku am conférence député bi ku am ngénte député bi cas sociaux yi ñu ngi la wër balaa weer bee dee sa salaire da koy sàmm parce que député da nga war a nekk ci sa peuple jege leen di xam seen i problème loo ca mën nga def ko ci sa poste loo ci mënul nga dem ci ay ministre pour ñu taxawu askan bi mm-hmm. kon xam nga ne député role bi muy joué amul kenn ku ko joué mm-hmm. looloo tax salaire yi li muy rëy rëy rëy rëy wala lu muy tuuti tuuti daf dul daf dul toog bay mën a ñëw ci ñun 150 mm-hmm. millions yi indemnité de logement la député bu di jógee ci région yi sori te nga bëgg ne absentéisme dafa war a dañ ndax lu ñu constaté woon ci député yu njëkk yi dañ doon ñëw di faye ko ay salaire te liggéey bi daaw ko liggéey comme nañ ko soxlaa woon léegi nag député yi de rupture bii danoo bëgg fu nu oote réunion ñu teew ci commission technique yi parce que commission technique yi mooy yor assemblée nationale. Mm-hmm. kon nag député boo bëgg a mettre à nekk mu ñëw liggéey à l'heure di wàcc à l'heure da ko mettre ci condition yoo xamante ne du dem di ñëwaat di ñibbi à 300 kilomètres wala à 600 kilomètres. waaw mais xam nga man on la foofu li ma bëgg xam mooy pour ñu avancer si beneen euh, euh, laaj mooy 150 euh, 000 francs yooyu nee nga. dëgg la 150 député ngeen te euh, hôtel yi député xatul dafa xat daal ay 30 député la ngeen mun la loger mais kon est-ce que mën naa comprendre ne euh, que 30 député yooyu nga xam ne mën nañoo ñoom jot nañoo dal euh, am nañu dalluwaay kon ñooñu bokkuñu ci indemnité kon je veux dire 150 francs du député yëpp ñoo koy jot. waaw mais 150 mille député yëpp koy jot parce que ñun ñëpp ñoo yemle. Mm-hmm. égal parce que boo ko bëggoon a disperser ñii dañ am. te loolu ay Aïssatou dafa nekk loo xam ne c'est provisoire parce que ñun ñu ngi seet yan moyens la am pour am yeneen hôtel yoo xam ne danañ ci loger député yi su ko defee indemnité bi nga xamante ne moom moo fi indi coow li kenn dootu ko waxati. Mhm. parce que yaakaar naa ñun suñ préoccupation muy population bi xam nañ ne ñun nous sommes conscients que population bi dañoo sonn am na yeneen yittalu yoo xamante ne war nañ ci taxaw ñun. Mhm. pour luy yokk ay salaire luy wàññi lu wàññi train de vie de l'état bi la ñuy wër mais lu koy yokk ñun soxla waaw parce que xam nga xam nga honorable boo gisee vraiment euh, coow li jóg mooy euh, euh, Sénégal yi dañ jàpp ne wax dëgg yàlla député yi am na ñoo xam nga am na député yoo xam ne ñu ngi fayee ko un million trois cent te bu ñu wax dëgg am na ñoo ñoo xam ne yow c'est pas sa cas ndax gis nga gis nañ ko ci sa portrait yow commerçante nga yàgg nga yëngatu mais am na ay député yoo xamante ni nii avant ñu jot 1 million 300 mille francs yooyu ay chômeur la ñu woon amuñu woon ñaari mali lu suukar toll yoruñu ko 100 euh, francs mali sax amuñu ko donc ñooñu bu ñu xëy saw ñu ñu ñu ñu ñu 1 euh, million 300 daanu seen kaw euh, déjà ñi nga xam ci koo xam ne mosoo am fukki dërëm par par par mois ñu ñu dóor la 1 million cent mille jékki-jékki beneen mbaqu daanu waat beneen 150 mille francs dal sa kaw ci koo xam ne ni amoo fukki dërëm donc loolu te président Macky saal jaay ñu yoonu yokkute sénégalais yi tamit dañuy indigné. xam nga député yooyu ngay lim ñoo hmm. gën a sonn ñooñu ñooy député yi nga xam ne seen salaire du ma 3 jours xam nga la leen yóbbu ci député hmm. base la te base boobu bu fekkante ne chaque jour yaa ngi taxaw ci base bi di régler seen i problème dama ne la Aïssatou balaa la 15 sa salaire day jeex salaire yu bi day romb hmm. mais du salaire boo xamante ne tey da ci mën a jël say say say problème wala sa problème mu famille salaire yu député base lay dem mais demul fenn fu ci waa xam nga xam nga sànq yaa ngi wax ne euh, euh, euh, ba ñu gisee ne opposition bi par exemple à parti de Bakary sénégalais ak yenn observateurs yi nee nañu sànq yaa ngi ne assemblée nationale bi assemblée nationale de rupture la mais ñoom jàpp nañ ne bi assemblée wax dëgg yàlla assemblée bu médiocre la parce que te dégguñu bi benn action d'éclat bu ngeen def ba pare comme ni ma ko waxee euh, euh, ñu bëri si si si awaa euh, kii député yu bees yi xëy na ko ñu ñu siy nalaw loolu moom rupture la ndax nalaw gis gën naa gis ay image ñuy wane ne ay député yu nelaw mais en terme de de de de xumb xam nga de de fës yooyu de de de def ay façon député assemblée nationale bu wàdd quand même moo leen gënoon xumb xam nga assemblée nationale di Wade. Mhm. ñun bëgguñu ko reprendre. Mhm. parce que booba booba assemblée buy xuloo la assemblée buy ŋàññante assemblée buy xeex la. Mhm. assemblée bu de bi ñu am gis nga liggéeyu assemblée euh, assemblée nationale dama ne la commission technique yi ñoo yor assemblée nationale. te lu ñu constaté ñun ci suñuy réunion que ne député yi bu ñu leen convoqué même bu ñu nekkee ci région yi danañ bàyyi seen activité ñëw fekk ñu fekk si réunion yooyu muy réyon technique yi nga xamante ne ci la ñuy mën a càmbar. problème yi nga xamante ne moom la askan bi di nekkee lan moo baax nan lañ koy améliorer lan moo bon nan lañ koy bàyyi loolu député de rupture yi nga xamante ne mooy douzième législature ci liggéey boobu la ñu nekk mm-hmm. kon nag kuy liggéey jarul ngay fes parce que liggéey bi l'essentiel mooy li ñuy liggéey ñu am résultat te mu jëriñ peuple bi mm-hmm. te yaakaar naa ne ñu ngi ci voie boobu ndax bëri na bëri na ci euh, commission technique yi ñu mm-hmm. ñuy càmbar ay ay ay projet de loi yoo xamante ne ñu ngi koy indi peuple bi moo tax ñu di ko def ak suñu taxawaay euh, ndax peuple bi dañoo am confiance yónni ñu ñu ay ndaw ci euh, taxaw euh, ci assemblée nationale. Mm-hmm. kon nag yaakaar naa ne rupture boobu ñu ngi ci biir te ñu ngi koy def. d' accord léegi beneen bi mooy beneen question d' actualité fan yii yëpp ñu ngi yëkkati te te te su ma juumalee ki nga yëkkati sax mooy Moustapha Diakhaté di seen di président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar. ñi ngi yéen a ngi waaj a en tout cas moom dafa proposé ngeen dekkiwaat euh, li li ñu tuddee loi Ezzan maanaam ngeen abrogé ko loolu fi ngeen ci toll. waa loi euh, xam nga assemblée bi bu ñu ñëwee. Mhm. dafa am lu baax lu ñu fi fekk. Mhm. mën koy conserver. Mhm. mais nag bu ñuy lim ci lu gën a bon ci assemblée nationale. loi Ezzan la. ci naka xam nga ay Aïssatou dafa am loo xam ne xel mënu ko jàpp. ndax tey euh, loi Ezzan li ko fi indi ñëpp xam nañ ko. te mënatuñu jàpp ne crime. politique dañ koy da duñ ko duñu ko duñu ko duñu ko laal mhm. tey képp koo xamante ne sa sa waajur euh, génn na àdduna euh, su ma jëlee exemple maître Babacar Seye mhm. ay ay doomam ay famem soxla nañu mhm. nag euh, ki rey seen papa kan la te loolu mënuñu ko def agression Talla Sylla bi mënuñu avancer parce que loi Ezzan moo ko bloqué kon nag loi boo xamante ne amul bopp amul génn mi ko fay bàyyee loo xamante tey ba léegi si ñi nga xamante ne ñoo rey euh, Maître Babacar Sèye xamuñu leen seeni njaboot ñu ngi inquiété wu loolu dafay nekk loo xam ne mënuñu ko mënuñu ko concevoir te ñun comme askan bi moo ñu fi nekk dañu bëgg a mettre à l'aise tout le monde ñun nag suñu taxawaay mooy lépp loo xamante ne fekk nañ ko fa ci projet ci ay loi te baaxul nañu ànd nag nañ ko fa tege woon ñu dindee ko ndax peuple bi loolu la doon loolu lay xaar ci ñun. Mm-hmm. kon fi ñu toll fa fa ngeen si toll est-ce que yéen a ngi waay def ay commission yéen a ngi waxtaan pour euh, yëkkatiwaat ko wala. waa xam nga proposition boobu. Mm-hmm. Euh, sunu camarade Moustapha moo ko fa indi. Mm-hmm. léegi nag dafa am ay procédure parce que def nañ ko réunion bureau. te yaakaar naa ne dinañ dina sous peu de temps dinañ ko wàccee. Euh, mën ko liggéey ensemble. ba nga xamante ne loolu dañ ciy tirer une conclusion conclusion bi ñu ciy tirer mooy njëriñu askan bi. dëgg la léegi nag beneen euh, actualité euh, honorable député Awa Niang euh, questeur à l'Assemblée nationale le deuxième mooy. élection locale yi di ñëw le 14 mars 2014 yaa ngi dégg ñu bëri ci acteurs politiques yi sàkk nañu ñu defee désormais élection suffrage direct Euh, comme ni ñu ko defee ci présidentielle bi ah te foofu tamit euh, proposition yi euh, vraiment elles sont florès ku mel ne député Mamadou de Decroix moom mi ngi naan ne serait que pour le parallélisme des formes ginnaaw suffrage direct bu présidentielle bi day am premier ak deuxième tour que bi également nekk la même chose mu am premier et deuxième tour kon yow bëgg naa d'abord ah ci sa sa sa taxawaayu député à l'Assemblée nationale bëgg naa am euh, xam fan ngeen toll ci mbir moomu mbiru euh, euh, réformer élection yooyu yu locales yi ñu nekk suffrage direct ak également yow en tant que femme politique naka nga gisee yëf yooyu est-ce que lu baax la. waaw loolu proposition de loi la bu sunu camarade yi indi. Mhm. ñu def ci réunion de bureau. parce que mhm. proposition de loi bu ñëwee dañuy def réunion de bureau. Mhm. léegi nag comme. Euh, ministre dafa dafa dafa dañu war a créer benn commission. Mhm. buy réfléchir sur l'acte trois de la décentralisation te acte trois de la décentralisation li mu ëmb dafa rëy. Mhm. ci biir lool it euh, élection directe du maire daf ci bokk. Mhm. te commission boobu dañu war a door liggéey bi. ñun ay député lañ nous sommes la pour le peuple euh, dañuy bàyyi ñoom ñu liggéey liggéey boobu ba am conclusion bu ko defee ñu xool. conclusion yi boobu ba xam arrangé na peuple bi wala arrangé wul peuple bi su ko defee loolu ñun en tant que député ñu mën cee jóg wax ci sunu kàddu seet li nga xamante ne c'est en face de euh, de la population ñu taxawu ko ndax tey ñun lu ñuy sàkku rek mooy commission boobu nga xam ne ñu ngi koy door pour réfléchir ci acte 3 de la décentralisation ñu fexe ba boole ci assemblée nationale ci liggéey bi mm-hmm. su ko defee euh, lu ñu ci mën a tiire rek dafay fekk mu nekk li nga xamante ne peuple bi moom la bëgg. naka lañ naka lañ si boolewee euh, assemblée nationale. waaw parce que xam nga comme député bi dafa am rôle bu mu ci joué. Mhm. ndax euh, projet de loi bu ñëw la proposition de loi la léegi député bi ci boppam am na ci kàddu am na ci taxawaay. Mhm. parce que ñun suñu role mooy seet li nga xamante ne askan bi suñ ko voté dinañ ci sentir seen bopp. Mhm. te comme commission bi am na ay techniciens yoo xamante ne ñu ngi ci biir dinañ réfléchir. xool maire statut maire nan la ñuy améliorer position mairie yeeg yooyu liggéey boobu liggéey bu am solo la ah buñ ci dugalee député bi dina dina dina représenter l'Assemblée nationale. Mm-hmm. te seen conclusion dinañ ci mën a basé wu pour askan bi ci boppam. Euh, mën cee. kon kon kon kon yow boo sañoon benn député euh, toog ci commission ba toogal assemblée foofu. waaw loolu moom lu ñu sàkku la. te mm-hmm. yaakaar naa ne dinañu ko accepter. Mm-hmm. mais yow en tant que politicienne euh, femme politique bi nga doon naa ah, leader politique bi nga nekk yow est-ce que gis nga ne ñu ñu élire maire bi mu ne affaire mu ne élection locale la ah, mu nekk élection directe. dëgg-dëgg est-ce que loolu euh, yow yow si sa xalaat ah, waxuma nag député bi yow <laughs> dëgg-dëgg institut personnel est-ce que loolu euh, lu rafet la lu baax la. waa xam nga Aïssatou man euh, bëgguma yow nga may waxal li ngay xalaat parce que comme man député laa <laughs> uh-huh. ah politicien la bëgguma uh-huh. peuple bi mere ma uh-huh. te bëgguma tim parti politique yi mere ma mm. en tout cas daal comme am na commission boo xamante ne installé nañ ko mm. pour ñu réfléchir ci loolu dañ leen di bàyyi ñu lépp ñu liggéey ci après nag ñu ñu àndandaat àndoowaat xalaataat ci seet tirer une conclusion en tout cas daal li ci ëpp solo mooy na nekk loo xamante ne peuple bi ci boppam. Hmm. ànd nañ ci te euh, euh, baax na ci ñoom. xam naa ne daal comme ni nga ko waxee politicien nga ndaxte euh, maîtriser nga l'art de parler ak tamit surtout la langue de bois maîtriser nga ko <laughs> ndax on a tous compris que bëggloo ci wax daal en tout cas bëgg a joxe sa position personnelle. déedéet nit ki daal boo ko wóoloo ba dénk ko dara. waaw da koy bàyyi mu liggéey mu liggéey ko ba ba mu ba <laughs> mu mu liggéey ak sagoom hmm. Euh, honorable euh, li ñuy def rek euh, mooy laata ñuy dugal suñu rubrique question dañuy dem rek nag dëgg-dëgg seet yi nag ñi nga xam ne ni ma koy waxee rek ñoom ñooy ñoo ñu jox yu baax yi ci suñu biir émission face to face mooy suñu partenaire yooyu di waa best ñu dem seeti leen dellusiwaat. ginnaaw nag euh, bañu dellusee ñu nuyu waa best euh, kon dañuy introduire nag suñu rubrique euh, question question nag tey Euh, ki nga xam ne moo koy animé euh, mooy l'honorable député euh, Ndeye Gueye Cissé di koo xam ne ñëpp ràññe nañ ko ci paysage politique bi jege na président Wade def naa ñoo ñoo bokk seen Kébémer te également ku saf ku borom kaani la tey nag kaaniwu la yow xam naa xëy na daatee féminine la moo tax tey moom je m'attendais à ce que mu dóor la ay kaani mais dóoru la ay kaani donc dama lay jox rek nga seetaan ko mais xam nga ko moom Ndege Cissé. waaw xam nañ xam naa ko bon parce que mës nañu bokk benn plateau. waaw donc euh, waaw léegi kon mu ngi nii léegi nag kesteur euh, Ndege Cissé mbokk yi yaa ngi nii. honorable député Awa Niang dama koy laaj loo xam ni sax ci mbirum jigéen duma ko laaj politique ndax jigéen lañu te dafa am ay inquiétudes yu ñu am ci affaire jigéen dama koy laaj d'abord président Macky ni mu tontoo ci affaire conseil économique et social bi nga xamante ne jigéen ñi interpellé nañ ko ci ah nombre bu ndaw bi ñu fa am mu ni moom de list bi mu amoon li ko ci war ci parité def na ko li ci des liste yiñ ko indil la ma di ko laaj ndax gardien de la constitution volonté politique am waru woon a tax ku ko indi list boo xam ne nii tey jigéen nekku ca mu ni ko ah ñun ko dana am loi bu fi nekk boo xam ne ci àddina yëpp dañ ko nawe senegal ñu di ko doxal ba nëga ni kon jàppale leen ma ci bugguma mu dellu gannaaw question boobu ma di ko laaj moom nu mu ko gisee ci loolu nag laay enchaîner itam di ko laaj moom en tant que jigéen dëkk ci réew mi dëkk ci banlieue bi gis gox-goxaan yi ndax seen affaire bourse familiale cent mille francs boobu ñuy coow ndax am na njariñ dama yaakaar ni de cent mille francs yoo xam ne tey boo ko diviser par douze matul dix mille ndax bu doon di bu doon dix mille par mois sax yaakaar naa ne cent vingt mille la war a nekk kon soo demee ci famille te bëgg koo suqali te ñu am ay euh, développement communautaire nekk ci àll bi dama foog ni ay activité génératrice de revenu moom lañ waroon a gën a xalaat liggéey ko service compétent ya fa nekk pour que nit ki gis ci boppam nit ki di góor góorgóorlu di ci gis boppam bés bu nekk mooy cent mille francs nañu te teg ci suuf te seetaat xaalis boobu nañ ko mën a def ba mu am njariñ sama beneen question nag dinaa ko laaj ci affaire l'observatoire national de la consommation ndax dafa mel ni beneen arnaque day bëgg a ñëw moom ban dégg-dégg la ci am ndax ñu dañu xam ne prix yi nga xam ne ñu ngi naan wàcce naag wàññi nan dara lañu wàññiwoon diggante premier ak deuxième tour. am nañu liggéeyu pour gën a mën a jox le candidat Sall ay argument ñu def inflation ci réew mi yokk ay prix a un niveau boo xam ne jamais connu au Sénégal mais léegi prix yi dañoo delluwaat ci réalité loolu moo fi am mais wàññi amu fi walla boog comme ñaari catégorie sénégalais lañ dugal xëy na ceebu fas bi nga xam ne nii moom nee nañ danañ ko mën a wàññi ah loolu xëy na mooy seen observatoire moom lay wax ndax nag importation bi nga xam ne moom la Sénégal am dépendance bi ñu am sur le plan international ma ni observatoire c'est pour endormir les Sénégalais yaakaar naa ne dama bëgg moom en tant que jigéen ban taxawaay lay am ca assemblée pour leeral leen ni kat population Sénégal yi sonn nañ sonn goo xam ne lépp loo xam ne pour détourner leen ci seen quotidien di leen xaarloo defate un faux espoir moom en tant que jigéen xam li jigéen ñi di daj di yaay di bàjjan di tànta di lijjanti góor ñi di mottali la ca kër ga kon yaakaar naa ne jigéen ña ci assemblée ni ma leen gisee ak ni ma yaakaar ci ñoom am na yoo xam ne bu jógee dana taxawaay lañ ciy am. ne dama ni woon du ma ko wax politique mais dafa am tuuti lu ma inquiété ndax le président Macky Sall gardien de la constitution président de tous les sénégalais qui qui a le devoir de préserver l'image du Sénégal au niveau national international parce que Sénégal dafa am niveau boo xam da ko am dafa am considération bu mu am sur le plan diplo euh, de la démocratie dafa nekk référence en Afrique et même en Europe kon su amee ay dinosaures yu nekk ci wetam di am yenn discours yi par rapport à l'interdiction de la marche du PDS na xoolaat ne c'est la constitution moo joxe droit de marche kon am na wax yoo xam ne ñi ne ci wetam buñ koy wax dama koy laaj moom man de bu doon man dinaa ni président Macky Sall am na ñoo xam ne na leen arrêté ndax kat dictature mooy bëgg a ñëw ndax bu ñu demee ba ne amuñu ci droit dootuñu ñu marche kenn dootu leen ko may ñun dañoo réaliste du ñu yàq nous avons construit ce pays Ablaye Wade dafa defar réew mi kon du ñu yàq. benn risque amu fi waaye nag droit bu constitution amaye nga tëb ni dootu fi am loolu bu boobaakat xëy na danañ jóg de taxaw ndax ñun kenn duñu noot waaye nañu xool image ba muy reflété ci Sénégal. ñi honorable ñuy remercier nag l'honorable député euh, du PDS Ndeye Guèye Cissé moom it sama bàjjane la bokk euh, honorable merci alors euh, questeur tontu bi. dama koy nuyu au passage. Mm-hmm. Ndeye Guèye Cissé. parce que yàlla def na ñu xamante woon avant mm-hmm. Mm-hmm. Euh, li may répondre ci première question bi moom def ne euh, président Macky réponse am ci conseil économique et social mm-hmm. nga tey dama am mbégte ba nga xamante ne tey parité application bi président Macky Sall moom moo ko def ci régime am lañ la la ñu la parité te man jigéen ñiy xeex pour parité bi man dama ci bokk parce que tey sunu Euh, su nu taxawee nekk 64 pour cent ci assemblée nationale di ay jigéen yaakaar naa ne loolu dañoo war a taxaw ñun en tant que femme di ko yokk mm. waaye waruñoo taxaw pour di wàññi loolu président Macky nag def na lam war a def ndax euh, listam jël na ci 19 femmes dugal ko ci conseil économique et social loolu dépassé na largement 50 euh, pour cent kon nag liste bi nga xam ne moo ko moomal boppam mu jël ko dugal ci 19 femmes kon nag loolu président Macky Sall ñun jigéen ñi ñu ngi ko ci félicité. beneen bi mooy dafa nekk ak ay nawleem ñu nekk ay chef de parti ñeneen ñi nekk ci ay organisation socio professionnelle lii dañ koo am dañuy door door nañu am am am am lii dañuy ñaan di dolli. Mm-hmm. waaye nag rôle am du dictateur ba mën di imposer les chefs de euh, parti wala les les organisations socio professionnelles. pour di leen imposer candidat ba ñuy joxe. Mhm. ki am sa candidat yaa xam buy jigéen nga indi. loolu moo ñu gënal ñun en tant que femme. Mhm. mais soo proposé le président de la république góor moom du dictateur ba mën ne la yow indil woo ma jigéen góor nga ma indil li des nag mooy te dañ koy ñaan. Mhm. mu gën di ñu gën di taxaw. ci euh, li nga xamante ne mooy. Mhm. ceru jigéen ci genre list yu demee noonu. Mhm. Euh, kon nag yaakaar na président Macky li waroon a def ak li mu diggee woon ak jigéen ñi loolu la def ndax listam tey bu ñu vérifié 19 femmes mi ngi ci biir. Mhm. léegi beneen bi am na beneen laaj ma laaj ne la euh, ci li aaju ci denrée de première nécessité yi prix yu wàññeekul dafa yokk. waa xam nga ñoom damay wax ne bu ñu amoon tuuti xalaat. wala ñuy ñu xool ca mille ba ñuy jot dëkk bi. prix ceeb lan la daan jar prix dëwlin lan la daan jar prix saabu lan la daan jar prix gaz ay satu gaz 2000 boo daan joxee 1000 francs dañ lay delloo weccet prix yi yéeg yi kan moo ko fi def prix yi yéeg yi ba nga xam ne gaz tey dangay joxe joxe 4000 ñu jox ñu delloo la 200 francs ñun dañ ko fay fekk lu tax ñoom ba nu fa nekkee xalaatuñu woon ne prix yi waruñu koy yëgal ñoom ñoo fi liggéey ba plafonné prix yi ci ci ci ci euh, hauteur boo xamante ne tey président Macky la mu waxoon def na ko ndax daf ne woon su ma nekkee au pouvoir la may njëkk a def wàññi Aïssatou wàññi na. Mm. wàññi na te ñu ngi ko ciy félicité xam nga ñëwul yokk bu yokkoon tey mën nañoo def ay débat mais dafa ñëw pour wàññi te li nga xamante ne moom la nga euh, la sénégalais yi war a xam mooy gis nga jënd su fekkente ne dangay dem à l'extérieur kooku munuloo mm. am monopole mënoo am maîtrise parce que dollar def kon yow d'accord nga si li euh, président Moussa Niass wax ne gouvernement bi mënul wàññi prix yi dina ko wàññi parce que dina mi ngi ci gouvernement bi dana day taxaw pour di wàññi prix yi mosuñoo dégg fu ñoom ñu toogee ne prix yi mënuñu ko wàññi mais loo gis ci benn lay commencé ñi ngi jéem ñi ngi wut ay solution lu ñuy wàññee denrée de première nécessité mais quant à ko wàññi loolu président Macky mosu ko génne si si si si si waxam te gouvernement Abdou mbay premier ministre mosu ko génne si ay waxam la ñuy am mooy yan moyen lañu am ba li nu fi fekk mu yokku nan la ñuy am ba sénégalais yi mën koo am ci ay ba ay prix yu baax tey li nga xamante ne man moom laa jàpp ba jàpp tey réew mu mel na Sénégal ñëpp xam nañ ne dañuy consommer euh, ceeb bi bala ñoo am dëgg-dëgg lu nu lu nu gënal ci denrée de première nécessité de de de première les denrées de première nécessité nécessité mm-hmm. mooy ñu war a gëm ne lu ñuy béy bu lu nekk dañ koo war a dundee su ko defee bu boobaa pris yi dana dina dina nekk prix yoo xamante ne ñëpp ñoo ci ñoo ci jëriñoo tey boo boo jëlee exemple rue de la vallée mm. tey soixante quinze pour cent de la population moom la ñuy dunde ki am njëgu kilo ceeb mille cinq cent kooku moom la engagé mm-hmm. mais soixante quinze pour cent yooyu de la population tey nan lañ leen mën a accompagner ci ceeb de la vallée man temps yi dama demoon benn voyage mm-hmm. euh, en Côte d'Ivoire ma gis ñoom acake la ñuy lekk acake du importation acake lu Côte d'Ivoire di mën a di mën a ji muy IAM moom la ñuy defaree acake te loolu ñoom amuñu problème yi sénégalais yi di am kon mm. Sénégal war nañu am culture li nga xam ne moom la leen yàlla baaxee muy ay suuf su baax mm-hmm. yu fertile ñu exploité ko parce que ñëpp xam nañ ne Macky Sall priorité am agriculture da caa bokk mm-hmm. kon nag loolu mooy culture bi nga xamante ne moom la sénégalais yi war a taxaw mm-hmm. ndax tey bu ñu amee pour am ceeb bu doy ak pris yu baax kon nag yaakaar naa ne kon euh, affaire u ceeb ay yokk ak ay wàññi euh, dina fi dina fi jóg bu baax. d' léegi beneen bi pour ñu avancer parce que il nous reste moins de vingt minutes te laaj yi taxaw na gis nga ko <laughs> émission bi léegi euh, am na lu mu la laaj tamit ci seen marché bu ñoom waa PDS defoon buggoon na def ngeen interdire ko moom jàpp na ne loolu dictature mooy bëgg a dugg Sénégal d' accord nga. waa xam nga affaire marché boobu. Mhm. bañ ko njëkkee demandé dañ leen ko autorisé. Mhm. waaye nag ñun dañoo jàpp ne marche boobu ñoom tey waruñu ko def ndax ñoom ci marche boobu dañoo am luñ ca bëgg parce que dañoo bëgg leurrer sénégalais yi tey euh, Karim mi nga xam ne tey moom la ñuy defal marche Karim ñaata nit la la la porte préjudice ci bilan moom 600 milliards yooyu lan lañ ci mënoon lijjanti ci Sénégal gi ñu toll man jàpp naa ne tey Karim crime la def parce que 600 milliards yooyu fekk na Sénégal soxla ay docteurs soxla soxla ay hôpitaux 600 milliards yooyu tey bu ko dugaloon ci hôpitaux bëri na ñoo xamante ne tey danañ sauver. Mm. seen vie dana sauver kon nag tey yaakaar naa ci bilan wu Karim Wade Karim gënul ña fa toog. Mm-hmm. ñaata milliers de personnes ñoo nekk ci prison yi ce que seen njaboot toog nañ di wàcc di def marche. li nga xamante ne moom la ñu jàpp mooy dossier bi mu ngi en justice. Mm-hmm. ki nga xam ne ñoom li ñu doon xaar ci ñoom mooy tey. nanu jàpp Karim nan ko atte na mbir mi leer parce que Karim deful mais euh, euh, euh, dossier bi nekk en justice léegi ñu ne nañu nañu arrêté loolu pour Karim génn ma Karim parce que papam da ko jàppoon prince waaye Karim c'est un sénégalais comme tous les sénégalais justice dafa am nanu bàyyi justice mu liggéey parce que marche bi ñuy marche tey waru leen coono yi nekk ci dëkk bii ñoom ñoo ko fi indi ñun en tant que pouvoir ñoo waroon a wàcc di marche pour lan parce que lii ñu fi indi bàyyil ñu ko fi ci la ñu nekk di ko lijjanti Macky Sall nekk ci yoonu defar redresser Sénégal mm-hmm. kon nag yaakaar naa ne métit boobu ñun ñoo ko consommé mais ñoom consommé wuñu ko de mm-hmm. parce que ñoo ko fi créé dem bàyyi ñu kon nag la leen war mooy ñu toog bàyyi président Macky mu redresser dëkk bi parce que mu ngi ci yoonu di ko redresser li fi yàqu lépp ñoom la li fi yàqu lépp Karim Wade mi nekk prison la kon nag gënul nit ñi il faut ñu bàyyi justice mu liggéey liggéeyam su ko defee ñoom ñu dem toog comme dañoo jéem tëleem mënuñu nañ dem toog président Macky Sall mi nga xamante ne moom la askan bi wóolu mu continuer liggéey bi. d'accord léegi beneen bi honorable léegi ñu ñëw nag si seen parti di alliance pour la république yow euh, euh, Awa Niang fan yi ñii li journaux gis nañ la. Euh, defante bi nga nekk ak euh, sa beneen camarade de parti euh, di Pape Mayel Thiam mi nga xam ne suma ma moom mooy seen manageru parti ah, di di di di alliance donc pour la république ay querelle de base la wala ay matante gëjante ci seen gox bële dali fort wala Pikine ak yooyu donc est-ce que matante boobu laa bëgg xam fan la jógee pourquoi yàq yàq yow Pape Mayel ngeen ngeen defante noonu pourquoi. xam nga ay Aïssatou man c'est rare. ñu may dégg ci ay problème waaye dama nekk femme boo xam ne femme de principe Macky Sall ba ma koy jàppale injustice moo taxoon ñu di ko jàpp ma di ko jàppale kon dama jàppale Mayel Thiam man je n'ai rien contre lui un frère de parti yàlla def ñu bokk benn département Pikine te yàlla def it Macky Sall jox ko cër bu rëy jox ko dénk ko administrateur du parti loolu ñun suñ cër la en tant que Pikinois waaye nag dafa am loo xam ne man dama koo mënta dégg ndax tey Pape Mayel commune am ba mu dëkk gannaaw raay ma neewuma dëkku fa fa la dëkk mhm. waaye nag ba mu fa dëkkee dafa fekk ñu am ñu doon yor parti bi nekk fa démb ak bërki démb di liggéey avec leur maigre moyen liggéey ba gagné premier tour boobu Mayel mi ngi Burkina façon gisuñu ko mhm. ba ñuy liggéey ba am base base boobu tax ñu gagné premier tour boobu Mayel Thiam ñëwagul mu ngi Burkina Faso mu ngi Burkina Faso waaw léegi quel que soit alpha bu ñëwee ñu dénk ko teraanga bu mel noonu. man damaa mënut a concevoir commune am du am tendance. parce que li mu waroon a njëkk a def mooy ñëw tëdd ci suuf ñëpp jéggi ci kawam parce que kilifa la. bu ko defee tendance yeeg problème yu ndaw ndawaan yëpp mu géré ko ba commune nu Guinaw Rail Sud dafay nekk référence dafay nekk exemple dans le département de Pikine waaye defu ko dafa ñëw ne man équipe bi ma fi fekk valableul faale wu ma leen bëgg leen a dindi teg leen fële. Mm-hmm. benn ñaar muy organiser meeting. xanaa yow booy organiser meeting sa commune yaakaar naa ne bala ngaa wuti ay njaganjaay yu jóge Louga ak Thiès nga nga mobiliser sa commune parce que li ma amoon pour dégg-dégg ak jàpp ko mhm. mooy dafa waroon a toog woo waa commune ba ne leen kat meeting bi seen meeting la yéen yéen fi nekk ay responsable c'est pas officiel yu provisoire rek moo fi nekk mhm. waaye nag comme ak coordinateur am na responsable des femmes am na responsable des jeune am na meeting bi may bëgg def pour massification la dénk naa leen ko bu teral na leen te ku ko dégg dinañ ko naw kilifa dafa am nu mu war a taxawee. Mm-hmm. mais su ñëwee ne yëgalu ma leen boolewu ma leen bëgg fa def ay meeting man ci sama bopp ma ne du ma dem. Ah parce que ku ma ko defoon ci sama commune ba ma nekk du neex. Mm-hmm. ma ne du dem beneen bi may waxit mooy ñun amuñu lu dul département. Mm-hmm. te ku mel na Mayel Thiam dañ koo soxla ci suñuy réunion duñ ko gis ndax xalaatam. mën nañoo apporte quelque chose ci département Pikine kon nag lu nu bëgg mooy mu gën a wàcc si base bi gën a ñëw ci département bi di gën a ànd ak ñun di liggéey mais nag est-ce que foofu tamit euh, comme yow yow nee nga euh, danga ànd ak euh, président Macky Sall ca ba ci ndax jàppoon nga ne injustice moo daloon ci kawam nga bëgg a ñëw aar ko. kon euh, euh, ni nga waxee nii Pape Mayel Thiam xam nga ñu bëri sa bokk na si euh, man dégg naa ñu naan ñàkk laa ki ñoomi seen parce que mu ngi burkinabé la ah Pape xam naa ubbil naa la taalal naa la loxo ubbil naa la émission après nga defan teg man na dégg naa ñàkk la bëgg naa xam na dégg na olof wala déggul olof donc moom yéen comme ni nga ko waxee ba ngeen doon nekk ci naaj bi di xeex Pikine ak ñoomin seen moom a nga tëdd fee Burkina faaso di lekk ay pentaat gris yeeg ñoomin seen léegi nag kon pourquoi brusquement président Macky Sall yéeg ñu jëlu doy ne euh, euh, euh, alliance pour la république alliance pour la république administration bi dénk ko ko mu bëgg a ñëw comme ni nga ko waxee nee nga nee nga mobilisation njaga la def ñi mu jël ay Louga ak Thiès la dëkk kon est-ce que foofu amul injustice kon ci ci au niveau du parti. non injustice sax mën na cee bañ a am. parce que mm-hmm. président ku mu nommé xam na sa capacité xam na li nga mën ak lu ma mën dafa am ñaari politiciens. Mm-hmm. dafa ñoo xam ne poids lañ. kenn du leen compter euh, poids lañu. Mm-hmm. am ñoo xam ne dañ leen di compter. am na ñoo xam ne moom bu dee politique njaga njaay mobilisation. Mm-hmm. ak ay mbooloo am nañ ko. Mm-hmm. mais am na ñoom xam ne seen xel seen xalaat bu rafet moom moo leen di may cër bi leen di président Macky. te nag duma ma ko du ma ko du ko du ko kii euh, loolu dama koy remercier. parce que mu ngi doon def ay formation yoo xamante ne dafa ko daan def ci ñun. dafa daan former euh, femmes yi di leen jàppale. ci problème yu bari. loolu defal na ko président defal na ko parti bi defal na ko ñun. Mhm. mais lenn rek laa xamante ne d'accord ma ak moom. na wàcc département bi te ñim fi fekk na leen considéré ah. dooleel leen loolu rek laa am problème ak mais euh, mais beneen bi bala maa parce que fi ñu toll émission bi euh, jeex na ma maa sàcc cinq gis nga ko te te des na mu gis nga gis nga mu ko de émission dafa gàtt honorable jommi nga de jommi naa <laughs> suñu honorable Ndeye Cissé <laughs> euh. dafa am benn question bu ma posé léegi parce que daf ne bourse familiale bi Macky Sall def mm. loolu kay ñëpp ci war a sant yàlla mm. parce que yàlla dafa bind te yemalewul mm. am na ñoo xam ne bu weer wi dee ñi ngi toog ci seen ñi ngi dem di rangi seen i salaire di ko am mm. di ko indi ci seen biir kër am na ñoo xamante ne mosu ñoo rang banque xamuñu luy jël pension wala dara te yàlla def président Macky jël cent mille francs bourse familiale jox ko les deux cent cinquante familles programme ci programme yoonu Yokkuteem bi loolu lu ñuy saluer la parce que lu tax mooy cent mille francs yooyu dana am lu mu apporter ci biir kër gi ndax tey xale bi bëgg a door jàng te amul possibilité inscription amul possibilité jënd fourniture yaayam wala papaam amuñu ay possibilité loolu tey président Macky dugal ko képp kuy sénégale dafa war a rafetlu geste boobu kon nag yaakaar naa ne loolu ay ak ay def ne mënoon nañ koo seet ci ay activité généralises de revenu loolu ñu ngi ci parce que xam nañ ne ñu ngi taxawu jigéen ñi ci seen i projet pour di leen financé mhm. kon nag yaakaar naa ne lii président di def ci euh, famille yi lu am importance la activité génératrice de revenu ñëpp xam nañ ne euh, euh, ministre de la femme Mariama Sarr mhm. mu ngi jël ay financement di ko dugal ci banlieue bi kon nag tey mais kenn xama ko moom Mariama Sarr moomu wax dëgg yàlla foofu moom foofu moom añ si tëb si reer ndax yéen yéen femme yéen femme APR yi moom yéen wax dëgg yàlla mooy loolu euh, je sais que ay structure provisoire ngeen am mais seen femme yooyu à part yow mi nga xam ne am nga courage dëgg-dëgg euh, jàkkaarloog journaliste yi di di euh, bëgg a défendre président Macky Sall euh, ay Mariama Mariama Sarr moom ñu dénk femme yeeg ñoomin seen man man su ma ko doon si mel ma ko xàmmee ma ko. tamit tamit mise de la femme. yeneen tamit beneen femme boobu tamit ngeen ngeen dénk seen femme yi kii madame ba ndax ñun université bokk nañu si ay ay étudiante man ñu madame ba lañu ko doon woowee mooy ma kii madame Badiane waaw madame Badiane moom tamit mooy loolu. aussi euh, moom dafa naa ni nekk ci clim yeek neex kon femme yi moom bu ci wax. déedéet danaa si wax nag danaa si wax non non femme yi bu ci wax ne Mariama Sarr. Mariama Sarr tey. mais ko kenn xamu ko. Mariama Sarr war mi ngi def lu baax ci dëkk bi. non non mu ko. Mariama Sarr kenn xamu ko. Mariama Sarr gis nga li muy liggéey a hmm. koy laaj jigéen ñi. parce que tey financement jigéen. jigéen ñi xam moom moo koy def te mu ngi ah, ciy def lu am importance di jàppale jigéen ñi. fasul de mu ngi fës parce que tey jii enveloppe bi enveloppe yi nga xamante ne dañ ko daan dégg tey ñu koy wàcce. yéen daal te li gën a neex ci Mariama li gën a neex ci Mariama ah. tey def ne man sama financement mm. du parti man je suis ministre de la femme et je suis ministre d'État. ministre de la femme boo xamante ne day amul xaaj boo amul seen mu ngi financé jigéen ñi mu ngi jàppale jigéen ñi ah, mu ngi liggéey ñun daal lu ma mën a wax daal mooy Mariama Sarr jigéen ñi daal jigéen ñi xam nañ Mariama Sarr kenn musul gis mu émission jigéenu Sénégal xam nañ kan mooy Mariama Sarr Mariama Sarr kenn mu ngi liggéey di jàppale jigéen ñi kenn xamu ko Euh, kon mbokk yi ñu ngi leen jaajëfal yéen également ci teewlu bi may nag euh, euh, remercier lu bari sama partenaires yi di si jiital nag sama mag Fatoulaye Kenna madame Sall borom complexe Sophia Mamel aviation adresse mi jàll si suuf moo génn si maquillage bi génn ci petite tête bi bagage yeeg tissage yeeg moom la tey nag ñuy dalal nag dëgg-dëgg suñu partenaire bu bees ci face to face di ñii nag samay mbokk waalo waalo la ñu te xam nga waalo waalo dafa bëggu mbokkoom rawatina nag euh, ñii nekk sama chéri di euh, waa complexe Dassault de Aziz Diop ñoom dadaa ñoom Sira ña fa nekk ñëpp euh, complexe Dassault nag mbokk yi ñoo génn fii gis ngeen ko ci image yi ah li xaw nu mu tudd couleur yeeg jasner honorable la wax ci bi bi moom baax na ah gis nga tegu na defar nga ba mu tëb ah, ah lu may def nag jàkkaarloo yow ma ak yow nuróowuñu nga defe ne si dañoo nuróo moom ah. Ah, dañuy nuróo <laughs> dañu nuroo te dafa naa ñu ñoo xaw nuroo tempérament ndax yow ma dama foog ne ñoo génn fii mbokk yi dem leen fa nag Dassault yu baax lay def ah Soda Aziz mooy génn fii ñoom ñi ngi ci jesner yi ñi ngi ci vaccin yi ñi ngi ci soie yi mais surtout nag euh, ak bi euh, génnalu bi bi xet bi moom xaw ma ko woon ñoo ma ko ñoo ma ko dóoral fii ci kanam euh, maa fii génnalal bi bii yii nag moom euh, xam nga caméra mënu ma wax yëpp mais xale yu dégg daaj laa bëgg a waxal yéen xale yu jigéen ñi dégg daaj complexe d'assaut ña nga ca wetu euh, école Derklé boobu mais ba ngeen fa duggee ba nga jëndee yére ba pare laaj leen euh, ñoom dadaa ña fa ne ruq jigéen ñi am na benn ruq yu baax bu nekk foofu ruq boobu xale yu dégg daaj yi ñu jongee ñeeg yooyu am nañ coin des femmes linge de corps yeeg huile de massage yeeg xeet yeeg yooyu ku ci bëgg a xam dara rek ni xool leen numéro baa ngi jaar si suuf ngeen woote fa ñoo xew nag temps yi Dassault complexe Dassault euh, may nuyu nag euh, xale yi ma àndal ah Jatu Ndiaye en face ah Alaaji Misaan Ndooy sama patron bi dama doo ci ruq bi ak euh, Adja Diallo mbokk yi beneen émission beneen numéro beneen dimanche beneen émission may nuyu nag waa Best suñu partenaire yooru au revoir